the The magic Then mommy buy you maja gani bon the lu bokulon imami bayi won fi wedi limadon da ma fatte won ni man my nyama tapanda ma yobbe won ma bayi sama yon fala jitalon aduna ma khaptalon kumay My lu ba ma daf la sama non wedi limadon kuma jogger one. Gastefti Campbell, I'm a buyer, be one. Leggy man, you need, come from my neck, me. From any demarer, come a lead on the knee. Come on, give me what, my man, you be what. I do not, my knock, nafsi, I'm a boom, chip out. Remember, come day, dinner, dead, lutate. The man, I go fat, the yellow, boom, in my mind. Dinner, I'm white, you and I know you bunny, my jay. Dinner. waxtu wa daan jot jotati nañu daan toog dellu seeti gannaaw ba ñu tardé ay minutes yu bare bare bare bare ci ndimbalal Modou Diouf technicien moo tardé ak Mohamed Seck ak Abdou Top ñooñu ñoo tardé waaye fii toog nañ fi ñu nekkoon ca TikTok ba di def ay live ñu ngi jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñoo ne foofu la ca TikTok bu Alaaji Sanjoogu Mbeng def nañ fa live bu neex macha allah pour préparer gars yi boobaak léegi nag techniciens yi ñoom ñoo tardé tey mbokkee xarit yi waxtu bu baax wi dellu seeti na ñu jëm ak yéen midi incha allahu rabbi tuuti bu ànd ak dogalu bi comme dañu tardé rek ñu daal di dem directement ci ci euh, nuyoo yi Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke ñu ñaanal ko mu yàgg fi loolu te ànd ak wér boutique la solution ak KP moo leen gunge danañ ci dikk xaritu Serigne Sidi baa ngi nii moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke alaaji Sanjoogu Mbeng di xarit ci Serigne Daara alaaji maa ngi laa nuyooti. son bi ñu ngi lay fay. di la ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow di dem ba Touba nuyu xalif général des mourides sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér waaye di ziar di nuyu sunu sëriñ sunu xarit mhm. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbàkke Mbàkke bala ñu koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak mhm. di ko ziar bu wér a wér a wér a wér nuyu baax sëñ Xaadim ne ca kër ga ak njaboot ga yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di nuyu Serigne Abdou Karim Mbacke borom wax laa di nuyu kilifa dina yeewoo ci biir réew mi. Mhm. lew nañu seen Medina Baye Tiwaawan Ndiassane Laayeen Cene ba àndulaay di nuyu waa Jaamal. Mhm. nuyu bu baax waa kër ma El laa Njëgeen ca Thiès. di nuyu bu baax sunu mbokk jàngu bi. Mhm. Euh, démb nekkoon euh, fête. di nga ci di yéegu ki nga xam ni moom lay wax. Euh, Mariama. macha allah ñuy wax ni. ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci feetu démb gi. waaw di nuyu nag baax alaaji Modou juuf ak ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax mm-hmm. euh, Mouhamed Seck ak Abdou Top ñu ngi leen di nuyu waa di nuyu nag euh, sunu mbokk gambien yi son mm-hmm. bu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di wax ni ñi ngi am ci ñoom ñëpp mbégte ak kontaante ah. waaye itam di nuyu suñu mbokk Modou Modou yi <laughs> waaw Modou Modou yi nga xamante ni bii macha allah. Mhm. Eh, ñu safoo ñu lool. vraiment bëgguñu lool nag amuñu seen fay sunu borom rek am seen fay yàlla na leen yàlla fay. di leen wax ne leen ñu ngi leen di ñaanal fa ngeen nekk. Mhm. Euh, la ngeen fay def yëpp daal mhm. yàlla na lépp dal di barkeel waaw parce que seen yitte mooy euh, dooleel seen réew tey gis nañ taxawaay bi nga xam ni moom ngeen am ci réew mi mhm. waaw demu leen fàtte réew mi mhm. seen xel yëpp lu jagat réew mi ci ngeen ne. yal na leen sunu borom gën a dëgëral. amiin incha allah di nuyu mbokk mu baax mbokk moo xam ne saa yu ñu tàmbalee Assane euh, waxoon naa la nga lijjanti lu ñu turam ma nga ci bitim réew alaaji dafa am ay moodu moodu yoo xam ne ci seen biir oto la ñuy nekk. Mm. Euh, taal seen euh, tablette wala ñu taal seen rajo oto wala seen télé oto lu mu ci mën a doon daal ñu ngi ñuy siiwul foofu la ci bitim réew. Mm-hmm. ñu nekk ci oto yaag ci hôtel yaag ci biir kër ñu siiwul di ñu bàyyi ñu ngi leen di ziara nu mu tudd moom waa ji. waaw maa ngi si ñëw waxoon naa la Ismaïla sëriñ Ismaïla. Ismaïla Seck sëriñ jëf jërëjëf gis nañu mm-hmm. taxawaay bi ak mm-hmm. euh, seetaan geeg bàyyi xel bi jaajëf sëriñ la bàyyi sa mesre ñu ngi am mbégte contentement si plateau bu mag bii nga xamante ni mi ngi am altine ba àjjuma 11h jëm di léeg-léeg ñu tardé ba tey dañoo tardé. Modou la. ah Modou la mm. mais yow mii yaa yaa dirigé. ah man toog naa fi 11h05 fii. teg waaw waaye ginnaaw yaa dirigé hélas mën a jiiñ tardé gi mm. ah? xanaa léegi ñun ñoom bu ñu tardé ñun ñun continuer waxtaanee. toog na ci heure na ci heure waaye moom moo kii moom bu soññee lii du am. Hmm. nañ ko jiiñ lépp. d'accord wurta am ñu ngi sant bu baax Sénégal ak sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun di leen wax nañ gën a abonné bu baax te partagé te xam ne seen mbégte mooy suñu yitte. ñuy gërëm waa bitim réew gépp di gërëm mboolem ko xam yaa ngi ànd ak ñun di leen wax bitigu solution moo leen di gunge ñoo ngi jàkkaarloo ak wal fajri altine 8h fi la ñuy fekk ba 16h ba ajjuma hmm. ñu ngi fi di calpe bi gën si ñun ñi nga xamanteni ñun ay sénégal ak afrique daw leen ngeen wuti ko te bàyyi leneen mm. lu moom mm-hmm. moo fi nekk du leen ni kenn lépp ñëpp la mm-hmm. lu ne ku ne nga ci loo ca def la la nga say fekk mm. te gaa yi tàmbali nañ see def social bu baax ndax man mii gaa yi si lañ may nu tuddati léegi maa leen di sant bu baax di leen gërëm ci yow la ñuy social si lañ may kii kon yow ba léegi social da maanaam hmm? <laughs> dañ la social may kaapee maa ngi nuyu abu bu baax abu moom abu la ma waxoon dëgg de abu alaaj nag affaire bi war nañoo wax ak mum de après <laughs> kon yow yow daal ab social da ngaa sonn daal la ñuy social yow yow da ngaa xamul rek day da ngaa xamul yow asan jigéen wu ko sonn son no non non waxuma ñaqoo mais eh, léegi yow lu tax gisaat yow gis nga KP bi gis nga ma la ko wanee waaw li si dugg gis nga ni ma la ko ni muy génnee yow gis nga ko de ma xool yaakaar naa li si génn yaakaar naa benn reer moo si génn benn reer xuma ñaari reer mais yi si yëpp gis nga nam demee si yeneen numéro mi ngi ni yeneen numéro lu ñëw fii moom lu ñëw day jaar da gis ku ne ah ba Assane di kat maa ko yónnee fexeel gars yi ñu nga xool ñu wow ñu si war a jot ñu jot si ma kii ko piccaw ko mu dem en ah, hélas <laughs> bàyyi pour la ngi lay nuyu bu baax ma ngi sa gabon <laughs> <laughs> ñu ngi koy nuyu ñu koy nuyu bu baax di ko jaaral jàmm gabon moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy nuyu bu baax kontaan nañu sax même seen daayira yi seen ah. groupe yi daayira bu émission bi commencé dañuy jël lien bi dugal ko fi ne ah gars yi waa Sénégal commencé nañ ne ñun ñooy Sénégal quoi. ndeysaan jërëjëf waay jërëjëf mm-hmm. leen di nuyu bu baax di nuyu waa nuyu yëpp. Gabon mi ngi noonu kon jaajëfal leen bu baax a baax euh, alaaji kon euh, ma jox titre ma joxe titre rek après nga ñëw ci euh, mm-hmm. boutique la solution ak lëf ci KP Euh, ànd euh, séddoo coonoy askan wi di sologan bu nouveau slogan boo xam ni pour président Bougane Gueye Dany moo ko génne ginnaaw bi nga xam ni dem na ci ab dëkk boo xam ni dëkk bu ne ci àll ba ñu ngi ko tuddee euh, tëmb mbay yóbbu fa ay bagage ci wàllum faj dinañ fi ñëw léegi bu ànd ak dogalu borom bi moom muy génnewaat beneen slogan muy ànd séddoo coonoy askan wi Euh, ki nga xam ne moom mooy turbine yéen nag dafa xëy titre titre boo xam ni mooy maître Ablaye Wade nee na bëggatul ànd ak waa yeewi mu ñu mu àndaloon ba gagné élection yi daal yi ñu génn nee na bëggatul ànd ak ñoom di information boo xam ne nee nañu bañ ko waxee ku ñu naan Mame Diarra Fam euh, femme député euh, woote na ci seen télé ba ni leen information boobu wérul dinañ ci ñëw lu tax turbine bind ko am ku ne ca biir nee na du dëgg loolu dinañ ci ñëw ñu incha allah après ñu dem Touba fekk fa benn victime boo xam ni liñ naan fly box orange moo koy jaay yan lan la ci dund ci ay jafe-jafe incha allah loolu lépp dinañ ci ñëw bu ànd ak dogalu borom bi alaaji mu mel ni kon lii lépp bala ñu cee ñëw boutique la solution ak KP yi moom may jataay bi. waaw waaw KP yi macha allah son yi bu. Hmm. Euh, nekk euh, transfert d'argent boo xamante ni bii doomu réew mi moo ko fi taxawal. ma hmm. jàpp ni waa réew mi war nañ cee mën a jàpp ngoy ci bu baax a baax ngir mu jëm ca kanam. parce que hmm. jëm ca kanamam loolu sagu réew mi la. lépp lu koy doxal ba tey. muy jonganteeg ñi nga xamante ni ñoo jóge bitim réew mm-hmm. defe naa ni war na mën a dem ba fekk leen ca seen biir réew di jonganteeg ñoom mm-hmm. te loolu nag bu boobaa day nekk loo xamante ni bi mbégte ak bànneex la ci képp kuy doomu réew mi di am kon kàppe yi ñun ñoo ko mën a dooleel mm-hmm. macha allah bi mu ñëwee nag daf ñoo tegg lépp lu jëm ci wàllu frais yu ñuy fay ci diggante kat kuy joxalante jox asan xaalis wala asan di ma jox xaalis wala mu koy jëli ji loolu yëpp zéro la maanaam doo ca fay dërëm kon nag kàppa yi dafa ñëw wane ni moom mooy ki nga xamante ni bii nag ah moom moo fi nar a nekkal sénégalais yi kon daw leen wuti ko nee naa leen ba tàyyi sénégal am na ñaar ñu fi jotoon a nekk nekkatuñ fi loolu nag du yaafusu ña ko taxawal mm-hmm. waaye sénégalais yi desee doon lañu doon moom moo nasaxal loolu mhm. kon nag buñ demee ba keneen gis loolu ba noppi wëlbatiku investir ci lu mel noonu ñun sénégalais yi nag dañu war a wane suñu patriotisme mhm. wane suñu bëgg réew mi mhm. xam ni dërëm bi may dugal ci sama kalpe kaapay bi sama réew laa koy defal d'abord parce que ki ko moom doomu réew mi la dërëm bi génnut gaal gi kon daw leen ca kaapay li nga xamante ne bi nag moom la ñuy wax eh, nga xam ni moom mooy la solution boutique solution di yëngu ci garabu pajum cosaan mhm. defe naa ni biñ ci dalee yëngook léegi mat na at mhm. boo xamante ni bi boutique solution di ci liggéey liggéey bu am solo mhm. defe naa ni ñu bari fii lañ tàggoog hémorroïde ginnaaw bi ñu sonnee lool fu ne ñu dem fa ñu ci bari fii lañ tàggoog siti waaw néew kàttan nag yoruñu buy faj waaye bu koy dimbali lañ yor. Mm-hmm. bàcc mu leer waaw bàcc mu leer. ni ko Assane tuddee. Mm-hmm. yor nañ fi it garab goo xamante ni mi ngi ko raay mu sedd mu ànd ak yeneen i mbiri baatin. Mm-hmm. yoo xamante ni bii ngir protection lu jëm ci wàllu rab ak yu ni mel. nga xam ni boo koy diw say doom. incha allah rab bi sunu borom mën na leen a musal ci yooyu yëpp. te it fuy métti diwal boo ko diwee mu sedd guy. ci kàttanu borom bi. yor nañ fi it li nga xam ne moo macha allah ak li nga xamante ni moom la ñuy wax euh, estomac maa fi suppu kànja dama daa ceebu suul bu am bëgëj boo ko bëggee lekk songal estomac ba waaye tamit autoroute baa ngi fi ngir góor ñi yokkum awra waaye ngir jigéen ñi tamit yokk ay ansak lu ca mel ni awraak lu mel noonu <laughs> yëpp kat am na asan duma la bàyyi ngay leeral mukk ci toj réew mi <laughs> asma gaa ngi fi muy garabu asma boo xamante ni bi day tax nga tàqalikook asma nekkut lu koy kalme mm-hmm. waaw léeg-léeg nga dégg nit daa dee jël ne maa ngi sëqat <laughs> waa ji nee na saqat leen saqat day faj da koy faj même nga jël ko noonu am na ñu koy jël nag moom du leen duñu saqat duñu def dara mais de dépend ci nit ki mm-hmm. asma bi ni nga xamante ni bi fa la toll mm-hmm. am na ku koy jël mu koy saqatloo mais nee na day génne lépp loo xamante ni bi kii la parce que asma ay genre fatt ak yooyu ay kii yu fatt la rek. Mm-hmm. waaw da koy dégager incha allah rabi ci kàttanu borom bi ba nga tàqalikook lépp loo xam ni jëm na ci wàllu asma. topp leen traitement bi yéen ñi nga xam ne a ngi koy jël. Mm-hmm. koo xam nag day jël benn butéel rek daa dee naan nag ne wér na. waaw mm-hmm. topp leen traitement bi <laughs> ñi laan wala moom ba mu kii ba moom fatt rek daal di jël naanub kudd naan kii rek ne wér na. mais affaire ba dañ mën a ko déet continuer. traitement la <laughs> la continuer ko donc macha ak ñeneen ñi nga xam ni wax dëgg fa yàlla ñu ngi koy jël tayit alhamdulillah yalla ngi def sutura masha Allah ay sajjatoo ko nga bayil ko audio message wa nga liiree tontu masha Allah ku ñu wax uh, Omar Sané mom ma nga ci Maroc néna solution amul fi ci Maroc ak kay amone na sax waye dina dellu ci wat inshallah dina dellu siwaat mhm. dinañ am ñu wa Maroc inshallah dina am kuñ fa représenter Maroc ak Dubai yépp ñu ngi ci ñu ngi ci bu soobee suñu borom parce que ñom dañ fi woté di mhm. wax ni soxla nañ mbiri inshallah ci carton borom bi dana ñam masha allah jaajëf kon mi ngi noonu ñu daal di door liggéey bi kon li nga xam ne moo ñu fi indi bala ñoo ñëw ci président Wade mi ni euh, bàyyi na wala boog pare na pour euh, tàqale kook ñooñu la dawaa Yewwi ak Bougane Gueye mi génne nouveau slogan euh, ànd ak askan wi di séddoog ñoom seen i coono dinañ ci ñëw bu ànd ak dogalu borom bi ñu dem directement Touba déglu fa élément boo xam ni dafa mel ni lii ñu bari ñu ngi ko doon jooytu ci wàllu li ñu naan fly box benn wifi la boo xam ne orange ñoo koy jaay yan jafe-jafe la ci Sénégalais di jànkonteel ñu dellu si salaamaaleykum Cheikh son yi bu ziar naa la man de dama am lu ma metti ma bëgg nag ngeen dimbali ñu ci ci seen émission yi diffuser ko parce que mënoo dem Sonatel bu Touba Sonatel nga dem nga abonné fa Flybox yi vingt cinq mille boo xoolee mu ngi nii le 2 août nga abonné ko vingt cinq mille francs ki la ko kii aboneel ci biir agence orange bi xamal la ni la euh, vingt cinq mille yi dangay am 300G kii yaa ngi nii lu leer naññ laa yore jën jëndee ma ci mbedd 300G mu wax la ko di la raay di la neexal ba nga jënd ko ba pare ba fay sa abonnement ba am sa contrat mu ngi nii nga xëy tey jii ñu ni la message lañ la sa connexion jeex na nga woote service client service client ni la vingt 25000 bi 30G ngay am lii nag arnaque la sàcc sàcc dëgg la man nag xas naa leen wax naa leen lu ma neex ndax li dafa metti te mi ngi nii leer nañ moom waa biñ jëndé man ak sama jëkkër pare mu ni même 300 g yi mën na dem sax ba wër bi dé ta du fekk mu jeex kon le premier da ngay jëndaat pour nga yokku sa sa durée passe bi té du fekk sax mu jeex man ci internet bi la gëna liggéey comme que yeen yeen a ngi nekk ci tikki chaîne yi ngeen dimbali ñu ci ngir yalla xeyna bu ko sénégalais yépp jooyandoo wi dinañ ci taxaw bokk ndax arnaque bi metti na lii moom sàcc dëgg la sàcc dëgg la fii kenn amul vingt cinq mille yu muy sànni par weer kooku ni ma ki ne ci service client bi ma léegi da ngay jënd jëndaat encore douze mille douze mille neuf cent ngay jëndaat ma ne ko kan moo am xa jënd le deux ci ngoon nga jënd vingt cinq mille vingt cinq mille francs le deux ci ngoon nga bëgg jëndaat encore douze mille francs te tey la quinze te ñun fii ma nekk village bi ba bëreel courant daf fee coupé trois jours guddi gi lay ñëw te bu ñëwee une heure de temps lay ñëw kon boo jëlee le deux nga mooy ci trois jours ba ci quatrième jour tey jii dafa coupé kon loolu ñaata jour la affaire bi dem vingt cinq mille francs kon jàppale li ñu sonn nañu. te man li ma ci gën a jaaxal man nee naa waaje ki nekk service client man ko orange.

alors que ci contrat bi 300G lañu lañ ci def boo demee ci agence orange ba 300G la la wax mbir mi nag metti na torop nee naa ko weer bi dëkk bi ñu nekk nii mitti xanaa kuy for xaalisam ci ay mbedd waaye kuy kuy liggéey di ñaq gañe sa xaalis bi ci li ngay liggéey mu lew la doom doo ko jël di ko dugal ci ay connexion boo xamul faj moom nag dafa jàpp ni orange dañ koo arnaqué mm, ku ñuy wax euh, euh, mbokk mu baax mi ngi laajte ndax kañ la solution di am foofu la ca Afrique du allah dana fa dikk ba ànd ak dogalu borom bi kon Assane. mu mel ni soxna si dafa jàpp orange daf ko arnaqué ci ab boîte bu ñu ko jaayee ni ko wifi la. Hmm. Euh, après gannaaw ba mu dugal xaalisam ñu jaay ko avant moo am weer crédit ba jeex ñu ni ko dugalaat ak la ca xew. Hmm. waaye ci fly box yi moom mel ni am na leneen lu ci sénégalais yi di ñaawlu maa ngi koy wax saa léegi man ku ci mel ni man victime laa ci ci ñaari boîte yu ma jënd benn bi soixante dix giga la daan doon. Hmm. ñu xëy xëy léegi trois cent giga lay doon. Hmm. nga dem jëndiwaat boobu ñun la nag trois cent giga bii moom foo ko jënd ba yóbbu ko fa doo ko déplacé maanaam amuloo droit jëlee ko fi yóbbu ko Touba a ko yóbbu Ndar doo ko yóbbu maanaam fi nga ko jëndee la yem. Hmm. mu mel que ni tey boo doon toxoor danga nga koy maye waaye doo ko yóbbu. Euh, noo jàngatee orange ak nit ñi day arnaqué sénégalais ak cas bi dal soxna si. waaw kontaan si rek. ci lan. arnaque bi ñuy arnaque sénégalais tubaab bi ni muy arnaqué sénégalais. waaw dañ nga cee kontaan. bu baax ay ca layal ko. ndax kontaan si mënut a weesu. Hmm. nit di la teg loo xamante ni metti na. Hmm. te weñut sa loxo deful dara fi mu toog la toog nii lii laay def nga topp si di xëlëf xëlëfi. Hmm. nooy def. nga nga bàyyi ko leneen am na boo ci lee liggéey nag. am na beneen bu la fi ne bu loolu baaxul nga jéem a xaar rek xaj nag li indi KPE dana indi leneen. ok loolu daal laa leen di digal nit daal sa waay ndox mu tàng bu is ku dee naan suukar saa tax. Mhm. te nag nagu mag wërta sëgg fu amul dara nañu baax nañ ko fi baax. waaw. ah nañ ko fi baax est-ce que solution la. parce que solution la kay bu fekkee nit ki ci lay liggéey. waaw est ci lay liggéey nag li ngay liggéey di si amee dara la say génn nag da koy muñ. na ko muñ bu dee danga nga liggéey di si amee dara la say génn sa daraja mun ta ñàkk na génn ginaa nag boo jëndee moom dana la boo ko jëndee kat boo ko monté fii Ndakaaru hmm. si carte Grand Yoff hmm. fi lay nekk xam nga ko monte fa hmm. boo demee Touba nga jënd beneen monté fa waaye di yor ko def sab saag di langar-langari loolu mun ta nekk <laughs> non Assane nag Assane sérieux woo c'est-à-dire c'est-à-dire wax dañuy wax ni xam nga sa puce bii sa téléphone bi puce moo ci taa taa déglu may dugg waxoon nañu la maa seen daañu de sa puce bi dañ na koy jaay est-ce que dañ la koy interdit ah est-ce <laughs> que dañ koy interdit yow boo jëlee sa puce bi def ko sa téléphone fu la <laughs> neex Tamba Ndar Ziguinchor maatam fu la neex nga dem ak moom léegi est que bu ñu la jaayee wifi bii dañ laa war a wax ne la dott ko benn place ah. Assane asan yow la ah non mënoo fee nekk ñaari fan lu ñu wax nga ne waxal elage <laughs> waaw yow sa puce bi dañ la ko jaay foo dem na nga koy yóbbu puce nga wax de bi lee puce la waaye léegi boîte puce la doo ko def sa poos sa saag nga koy def mais puce la laa wax boîte la chef sang nga koy def. mais puce la dama ne booy dugal crédit doo fay facture. puce la man dañ la koy jaay da yow yaay jënd boo demee branché ci courant. waaw waaw léegi nag yow nga bëgg ko def ci courant bi du ñëw ah, nañ bàyyi la def xam nañ ko waaw baax na alaaji <laughs> Modou ngay yuuxu Modou looy yuuxu ah Modou moom orange ñoo ànd arnaque yi parce que fii ñëw naan waaw def nañ ko ci contrat bi yéen ko xoolul waaw loolu arnaque la orange arnaque la yi euh, noo gisee li dal ndaw si ndax danga jàpp ni njuumte orange la wala ndaw si beneen beet mooy flybox yi ñu wax ni arnaque moo ci nekk. waaw xam nga man de li ma gis mooy ndaw si. Mhm. Euh, dafa. dafa comprendre liñ ko wax wala ki ko doon expliquer. Mhm. desee comprendre yëf yi ni nga xamante ne bi noonu la tëddee parce que trente giga yooyu muy wax. Mhm. luñ la may la ci bi nga ko jëndee vingt cinq mille ba pare. Mhm. yaa ngi dégg parce que dañ ne appareil bi ñu ngi koy jaayee vingt cinq mille dinañ la may trente giga yooyu connecté woo mais trente giga yooyu ñoom ñoo la ko may. léegi nag booy jëndaat da ngay def douze mille neuf cent. bu boobaa nga am trois cent giga waaw loolu mooy li nga xamante ne bi moom la ndaw tam ndaw si expliqué na loolu wane na ni amoon na 30 giga hmm. kon donc ki koy doon expliqué parce que moom ci explication bi sax nee na ki lay expliqué di la neexal di la raay xaw ma jaay lu ci ab raay ah. non raay wax la rek jëkkërëb la àndaloon bi muy dem waaw maanaam raay xeetu waxin la rek waxin la quoi waaw donc loolu nga xamante ni bi en tout cas liñ ko wax moom hmm. leer na hmm. léegi nag moom moo ko déggee ne moom day am débat day départ am 300 giga mais li ko waa orange wax foofu moom wax dëgg fa yàlla. wax dëgg leer la parce que yow mii jënd nga ci jënd naa ci. Mhm. te it bi ñu koy jënd ki ñu doon expliquer li mu ñu expliquer leer na mooy que ni di nga appareil bi mi ngi jar vingt cinq mille. Mhm. di nga ah, dinañ la may trente giga. Mhm. boo crédit boo jëndee connexion di nga am. trois cent giga te ba léegi noonu lay doxee gisaguma mu soppeeku. waaw loolu mooy li nga xam ne moo ci ne. leneen li am tamit xam nga pare man saa am na ñoo xam ne dañuy wax ne. orange dafa créé woon ay box yoo xamante ne bii 70 giga la woon. si léegi ñu jékki-jékki éliminer yooyu. daal di créé box yoo xam ni 300 eh, giga te tamit ba tey yëf yi demeewul noonu. Mhm. parce que man gis naa ñu koo xam ni eh, boxam bu bi mu amoon mu nekk 70 giga yi. Mhm. moom la yóbbuwaat ñu paramétrer waat ko mu nekkaat comme box yi. Mhm. nga xamante ni bii eh, mais ci turam la nekkoon parce que man kooku daf maa jaayoon box ba. bi ma ko jaayee ba jëndu ba ko ci sama tur. Mhm. léegi nag bi ma waree def loolu ma dem jënd ji bële léegi moom bi ma ko joxaatee bii moom bii dafa dem rek daal di koy euh, ñu paramétrer waatal ko fayaatul dara. après mu daadee am comme box yi nga xam ne ñoom la mujjee woon am. kon tamit ñi nga xamante ni bi kii woon nañ am na ñoo xam ne peut-être bu ñu demee ne xam nga parrainage nit ñi aussi tamit même bu parce que nekkuma fi pour di défendre aussi tamit ñi nga xam ni ñooy kii mais tamit bu fekkee ne mbir dafa xew da ngay wax li nga ci xam mm-hmm. waaw parce que wax li nga ci xam googu mm-hmm. euh, que ni xamal ndaw si ne ko ci li mu nekk nii defe na ni arnaque la mais njuumte la goo xamante ni gi moom moo ko juum mm-hmm. ba noppi nag accusé ñi ne ne Euh, ne dañ ko arnaqué te ñi wax dëgg fa yalla bi jaay nit ñi tamit expliquer nañ leen yef yi ni mu démé won waaw donc ta ba léegi gisaguma mu changer d'accord parce que ba légui ñu koy fay légui bu dé ki bi asan nan gaay dañ koy wër def seen sac di langar langari ndax lolu arnaq la wax xam nga euh, lolu hmm. mën na ko mën na mën na mën naa nangul len parce que après bi ngeen di waxat parce que li ngay wax ni mom nak mom lolu la waxon parce que dama ne bon puce la bo xamanteni bi puce la rek boo xamante ni bii. c'est universel euh, mën na dem fu ne. mais boo seetee numéro yi 33 la. la démarré nangam nangam. Euh, kon numéro ay numéro fixe la quoi. comprendre nga yoo xamante ni bi peut-être. que ni xam nga tey di boo demee Touba 33 ñaata la. xam nga 900 euh, fii ñaata la 33 cent donc am na doo xamante ni bii mënta. mais mais fii biir Dakar. loolu da du fi valable. mais mais bu dee ci fii da koy jëlee Tëngéej indi ko Géejawaay. ndox boo ko indee géejaay du dox. waaw boo ko jëlee tëngeej indee ko géejaay du dox. Ah. waaw mais boo monté gis naa ay gis naa buy ñaaw lool sax bi indi kees bi ci biir plateau bi wane ni moom dëkkoon na ab zone mu ñëwee géejawaay doxul. waaw léegi loolu xam nga parensaay am na loo xamante ni bi boo xoolee xam naa dañ lay bañ dañuy bañ a yombal mbir mi comme mu mel ni portable comme li Assane wax na ne ngay yor koy langar-langar yi <laughs> yow moom Assane bi mu koy wax yow la <laughs> Assane jàngatul. voilà bàyyi ko rek jàngatul kenn ku dul yow. te voilà yow moom la affaire te di super te moom te bi boo ko ubbi woon boo ko ubbi woon fekk ci sama sama code ba moom am amoon na wifi boobu. <laughs> def sa mais mais du tax daal. yow moom Assane bi maa jaay amul droit dafa maa jaay amul droit ni maa jaay c'est que waroon nañu Assane waroon nañu créer lenn nag loolu ak sàcc la bu fekk comme tey ni ñu créer soixante-dix yi soixante-dix yi gars yi hmm. ni ñu fexee ba nga loolu ko waroon nañu mën a wax sony bu mi ko jëndoon fii ci Dakar. waaw waroon na am possibilité bu demee bu demee Touba. waaw mën a immigré tamit ñu xam ni. Ah. léegi kii bi dem na Touba ñu wax ko ne ko fii ngay jaar. Hmm. pour tamit ba tey mu maintenir. bokk sa parce que loolu dafa ak càcc la waaw donc nga dem laajte ba pare. yow da nga fay dem. laaj leen dama leen di ba am na yu tuuti yoo xamante ni bis day am non bul dama leen di ba amul amul numéro. orange ci xam nga bàyyi naa total. orange laa yiy teg waaw ah, non non total moom nga total moom bàyyi naa leen définitive mooy mooy kii baata man solatuma ci defatuma ci dara man moom jegewuma mais nag orange laa ciy teg man moom loolu parce que seen drapeau boobu moom. waaw loolu moom yow moom dégg naa fa ngay jàpp. ah nu may def grand kat loolu moom gars yi ba si projet yi projet yi bari na. neen la gars yi loolu. yéen gaa yéen gaa yéen gaa yow yaay gaa yow neen loolu. drapeau yaa ngi fees dell ba si Ousmane Sonko bu ko eh. dimbale bu mel ni bu total yii la. Eh. ba léegi nii mi ngi dox. Eh, projet yooyu moom Assane loo wax laax ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko projet yooyu la yor yoru ko dañ ko koo tiimale muy taw. ana photo bi. demal si fam dañ watee ana photo bi. xaaral bu moytul photo bu ñu monté nag asar. ana photo bi gars yi mën nañ lu ne. ana photo bi la ba muy wote ji. waaye génneel photo bi asar yow mii gars yi mën nañ la dinaa wax ñu monté la parasol. waaw déedéet kenn du ma ko monté. baax na. Ah. kenn du ko monté. mooy dinaa wax fii ku la monté parasol léegi tey ñu monté la parasol benn waaye tiim la. <laughs> Eh, nga nga ne nga ne xuj. ay jàkkaarloo gars yi mën nañ laa dugal foo xamante ne fii yow mii mën nañ laa monté léegi ab parasol. ñu tiim la ak parasol bi teel la ko nga naan lii fan la kañ laa fi. <laughs> macha <laughs> <laughs> defal attention ci yooyu. <laughs> kon ñu loolu lañ doon ubbee rek kon muy loo xam ne moom lañ doon ci wàllu orange ñu bàyyi euh, ar gi ak càcc gi ak. jaay doole gi léegi Assane Mesere ak parasol. gars yi dañ ko monté ak parasol. waaw ah man am waaye nañ ma bari yu yooyu nag tey jii. des fois nag ci nekk la ñuy monté taf fa ku nekk. naa ko xool ay kon ñu dem directement ci li nga xam ni moom moo ci topp Bougane Gueye Dany mooy njiital gëm sa bopp di njiital euh, Sen TV de médias moom nag euh, am na beneen slogan bu mu indi boo xam ne daal nee na séddoog askan wi ak métit xam naa moo dina leen wan image benn par benn am na ci ab dëkk bu ma demoon dëkk bu sore sore sore sore dëkk boo xam ne ñu ngi koy euh, tuddee euh, dëkk ba xam nu mu tudd parce que dëkk ba ci bopp moo moo moo ruqee waaw tëmb mbay la dëkk bi tudd dem na fa yóbbu fa li nga xam ne mooy ay ndimbal ci wàllu hôpital bi ak def ak yeneen yu ni mel Assane mu mel ni ci jamono jooju lañ toll est-ce que du

ya naa maa ngi ko gis si groupe whatsapp yi maa ngi gis gars yi di si commentaire ñëpp di ko rafetlu mm-hmm. euh, wax dëgg yàlla muy lu am solo man sax bi nga ne lii kat il faut que ñu kii ko dama dama ne ah macha allah ndax euh, solution comme ni muy doxee rek lépp loo xamante ni rek lu nit def danañ ñëw ni lii li mu def kat lii lañ si xalaat moo xam lu mu mën doon muy lu am solo loo xamante ni dañ ko si encouragé di di ko si ñaanal suñu borom kartanal ko ba mébét bi mu am si réew mi yàlla kartanal ko mu def ko ndax it euh, son bu wàllum paj dañ see war a dimbali askan bi faj ndax ñeenee di daan xam nga fee pantre bee ne meloon mm. aw waañ sax bu ñu fa toggoon ab ceeb jox ko hélas mi du ko togg du ko nekk lekk alta balaay fii fi ab palaatu ceeb génnoon ñu jox ko hélas ni ko si fii néeg bi la génne du ko lekk ci cin la ko togg non non non non li ko tiim xanaa gisoo gisoo néeg bi ni meloon mm. li ko tiim kenn mun la aw fos sax boo ko fa yeewoon mu am problème nga dem di fa dugal ay nit si si gonga du gonga sax lal boo xamante ni ay saaku lañ si lañ si kii di si jéem a samp nit ñi ay biteel muy lu doy waar loo xamante ni si réew mi yaakaaroon naa ne passé na fii mais lu mil nii nag ñoom opposition bi ñu war di wàcc si terrain bi di xool askan wi mais am na si ñoo xamante ni élection ba élection la ñuy wàcc te duñ wàcc tëli bi il faut ku ñuy wàcc tëli bi wut 4 kaat yu dëgër di dugg si terrain bi di xool lan moo xew si askan wi ñu leen dimbali Dakar du Sénégal du dakaar rek il faut que ñu wàcc si si si mbedd yi dimbali askan wi kon daal. Mm. en tout cas ñu ngi koy encouragé waa Tambaat ñu mais itamit euh, nga fàttaliwaale ko moom na séddoog askan ñuy nekk ay victimes ci jooni jooni it mu mm. séddoog ñoom seen mitit. waa si loolu la nekk. waaw déggoo li ma la ki nga xamante ni day jël ay millions. Mm. di ko yóbbu si ñoo xamante ni xamuñu ko si aadama ak awa. da ngay da ngay da ngay xool ni lii kat jaaduwut nga foto ko yónnee ko ñu ngi ko war a yónnee ba mu jot ci foto ni lii fan la ñu wax ko ñu bind demande jox ko mu daal def bilan laaj leen ñaataay baax ñu wax ko mu daal dem defar ko dem immigré ko. ñëwaat toog kooku kon lii taxu koo jóg. waaw lépp loo xam ma dama ne moom victime ñi ngi Dakar soriwuñ. dégguma de dama ne ki nga xam ne di yëkkati ay millions di ko def si. kaw waaw naa la dégg naa la kay kay lii li mu war a def mais xam nga. xam nga soo lii dafa yàgg quoi am loo xam ne Sanjog da koy jàngale. muy lan dañu maam nit ki li nga xamante ni yaa ko moom. mu leew la doom ak lu mën di xew na na tege si yoon. maam bu bul pression tax nga def loo war a def sa alal mu hmm? doonte fukki dërëm la bu waddee mu fekkoon ngay daw tourneel nga dem for fukki dërëm yi des sa poos ndax yaa ko moom waroo ko ah, ah. ni garaawut garaaw nee na garaawut day yàq am réew ah. tey ji mën nañ ne ko ah lii kat problème la yaa ko war a régler yaa def li mu ni garaawut régler ko te du yoon mais nga teg ko ci yoon loo war a régler nga régler ko loo wërta régler nga xam ne lii waru ko régler daal non li mu si war a régler lépp régler na ko teg na ko si yoon kon daal ñu ngi koy encouragé lii mu def di ko wax ne ko fi mu teg tànkam fi la na def noonu Sénégal a ngi si kanamam la mu waxoon li tax mu jóg mooy Sénégal naka lay def ba bokk ci réew yi jiitu ci Afrique. d'accord te yàlla na ko ci yàlla may ndam. yàlla na ko ci yàlla may ndam di kàddu ak Assane Mesere kon boog alaaji euh, Bougane génnewaat na beneen slogan mooy ànd séddoog askan wi. waaw li nga xam ànd daal séddoog askan seen naqar li nga xam ne moo leen dal bon waaw Bougane waaw loolu de lu baax la. Hmm. Euh, bu fekkente ni bii. Euh, def nga li nga xamanteni bi bii nga wara def. Mhm. parce que def na dem nga ne dekk ba nu tuddu tudd. Tëmb Mbay. Tëmb Mbay. ma nga luga mhm. euh mu dem fa defal len lan lu mu len do ay euh, matériel de santé matériel de santé mhm. waaw xam nga loolu tey mbir la yoo xamanteni bi du lu nit mën a ñaawlu euh, parce que fekk ñoo xam ni soxla nañ dara nga jàppale leen loolu lu baax la lu am solo la waaye tamit euh, dafa am tamit yeneen yoo xamante ni bi mhm. euh, tamit war nga ci bàyyi xel Assane mhm. parce que am na ñoo xamante ni tey mhm. bu fekkee ne nee nañ kat créé woon nga fi nàngam loo xamante ni bi nga koy créé ñoom yow la ñu jox confiance ci li nga xam ni moom nga leen présenté ba tax ñu yëkkati seen alal seen alal daal di dugal ci mbir moomu ba tey jii am na ci ñoo xam ni jotatuñu la nga xam ni mooy seen alal. Mhm. et pourtant am na ñoo xam ni bi ñuy investir yow la ñu xooloon. pour mhm. investiroon. ñooñu boo leen fi bàyyee. Ah. ñu nekk ci ay jafe-jafe. am na ci ñoo xamante ni bii. amee na ci ay bor am na ñu ci amee ay bor am ñu ci amee kii am na ñoo xam ne ñu ngi leen ciy topp ñu ngi nekk ci ay fitna léegi nga dem ñooñu ñu ngi ci coono ay 3000 lañ ci bàyyi ay 2000 nga leen koy xeebal yow yaa def fii sànq sa dërëm dërëm sax bu waddee waaw foral yaa ko moom yaa ko wax léegi <laughs> eh, dem taxawal yow yaa ni dërëm non non xaaral rek saa saa mooy wax yow yaa ni bu dërëm waddee jëlal yaa ko moom léegi kee bàyyi fa 3000 nga xeebal ko ko non da xam nga ah, yokk laay bañ na gis ko xam ne 3000 la ni ko laax yow 3000 yow junni person bu ñu la joxoon 3000 ñaata la. waaw junni personne da koo matul. te ñooñu am lenti wu ñoo bugaan. di ma wax banque ba lañ am leen teel. bañ demee sa yoon it leer na naññi. ah bañ leer na naññi banque ba lañ am leen teel ñoom banque ba ñoo doon wax. aja saa waaw xam nga ñooñu. Hmm. Euh, ci askan wi lañ bokk. waaw te tamit dañoo am coono goo xam ni euh, jàpp nañ ni yow yaa leen ko teg. Hmm. donc tamit ñooñu war nga lijjanti li nga xam ni mooy seen kàddu dëkk. parce que li jënti seen cas tamit nekk na loo xamante ni bi lu baax la comme ni mu demee fële eh, di régler problème yi mm-hmm. mais aussi tamit mu régler waale tamit problème yi mm-hmm. comprendre nga parce que bu ko defoon day gën a day gën a doon farata mm-hmm. xam nga nag ñun Sénégal dañu xaw mel nenn mm. dañ lay ameel bor di maye xaalis dëgg la te fekk ne ñi ngi lay yoreel ab bor ba noppi nag di maye fële xaalis. Sénégal waaw loolu nag moom mooy li nga xamante bi parce que par exemple yenn yi. kaay leen ma fay leen. waaw ak kaay leen ma may leen. Hmm. dafa am ak wuute waaye defe naa ne moom diine moom. bi ko gënal mooy kaay ma fay fay dégg naa fay bor. Hmm. nek na lo xamanteni bi ah, lu bor mom fay bor yoré bor <laughs> yoré bor nek na lo xamanteni bi lu bax la deg wa legi ki dugal yow euh, en tout cas solution fi tay ku fi dugal legi lu xewon dem ci ya dem fekke banque ba lañ ko legi yow fi dem bi fi ay dugalé mu am jafé jafé da nga ya jël sa téléphone di lijeenti lijeenti ba ba nga dem ah. ko jox ndax demal ci banque ba nga ne xujj di ma xool léeg-léeg nga def nga ne xujj di ma xool yow mii léeg-léeg nga def ko demal ca banque ba léeg-léeg nit dina dugal kii nga ne ko lii baaxul demal nga waaw mais baaxul non baaxul ak ak nga def dépôt bañ xam ne dépôt nga dafa déposé loolu dafa joxe lu baaxul ak lu baaxul bokkul code code bu baaxul ak dépôt yaa ngi dégg parce que kooku moo ko war a jël xam nga tey asal dof lu gi bàyyi xam nga ñaari affaire am xam nga tey mhm. nit envoyé na fi xaalis boo xamante ni bi après kii ba am na problème mais xam nga yaa ko lijjanti ba mu jotaat li nga xamante ne bi mooy xaalisam normalement loolu mooy li nga xamante ne bi mooy dëgg tey dafa am yoo xam ne même gis nga sénégalais yi jafe ñoo nekkal de hmm. bu ñu gisoon nga jox ko yitte gu mat sëkk hmm. li nga xamni moy sen problème wour na yalla bokk ak ñom problème bañu xam ko. Mhm. ñom ci sen jëm bopp nga assisté len taxawu len mhm. wour na yalla duñ la tutati mais problème am ngay gën def conférence mais du xulok ñom problème mu a wess mu a wess nga dajale len waxtaan ak ñom ni len ah dajale amul de du xulok tok xuloo toog ak ñoom dafa nànk léral leen bir mi nim mu ñu dem sa yoon moom kañ la nekk avocat waay yoon woo leen bam ñew ñëw yoon ni len carrément. ki kañ nek nekk avocat waay. non nek nekkuma avocat mais Sénégal Sénégal ma ñor. Mm. Sénégal nak képp ko ñor la ba paré waaw yow Sénégal ni li problème ngay du problème. du problème ah du problème ak bugaan joni joni mom kep ko xamanteni leer nan leer yàlla ni yore nga ci bor te bor ba nga sa yore ma wax la leen sa diggante ak bugaan na bo ci yore bor boo ñëwee indi ma wax la len ma wax la len gis nga mon seka ñom ñom bugaan ak ki kéré won wari déggo li wax de xam ñom bugaan da joxe sa numéro kon ñom biran ak ñi ki kéré won wari wóor na yàlla bi orange money ñëwee gouvernement bi na di may crédit wa gouvernement man dama né lii kenn waru koo seetaan. waru koo seetaan parce bu ñu ko seetaanee ñii dinañ daanu. parce que ñii amuñu fu ñu mayee crédit. waaw ba noppi. orange def ah, système ah nga ci orange li doon wax. non def système bu gën a dangereux. xam nga ban système la def. Hmm. maanaam ki ngay envoyé. waaw hmm. moom moom moom la ñuy may crédit. pas ki koy envoyé. léegi nga xam ne kii ak ki ñuy envoyé danaan orange moo ko. orange moo ne ma ko yaa ngi dégg. bay demee jënd gaz nga gis yooyu nga xam ne moom lañ doon def. Hmm. te loolu état bi état bi ko woon a seet mais état la seetal quand même mais que moo leen daaneel moo leen daaneel yaa ngi dégg ah. moo daaneel parce ñii ñii am nañ initiative te ñoo ko njëkk a xalaat xam nga li gën a garaaw mooy ñii am nañ seen société téléphone hmm. ñii toog réfléchir xalaat nu ñuy liggéeyee ci mbir moom ba créer ci transfert d'argent hmm. ci numéro yooyu waaw yaa ngi dégg ba noppi kii bëgg a ñëw moom ba noppi am réseau ba ah, pare waaw

ngeen dem koj ko ca solution humour di ngeen fa fekk li nga xam ne mooy euh, sketch tey jile mu doy waar lool ñaar ñi daal seen mbir ma ngay gën a xalañoo di leen fàttali mooy TVSA bu njëkk waa TVSA waaye léegi moom lañ tuddee solution humour voilà solution humour bu ngeen demee dingeen ngeen fa fekk solution humour mais logo TVSA ba ma nga ca nekk ay ayca mi ngi noonu kon ci point boobu ñu doon mujjee ci Bougane Gueye Dany muy eh, séddoog naqar ak lenn ci sénégalais mu séddoo ko kon caméraman yi fa doon liggéey ak gars fa doon liggéey ak techniciens yi fa doon liggéey te bàyyi fa di ñaxtu na ko séddoog ñoom ndax ku baax la dégg naa ko La Tribune yéen a kaay itam xëy titre ni Wade eh, nee na dafa pare pour bàyyente wala boog pour quitter dafa bëgg bàyyi ak yeewi askan wi am na ñu ma gis ci net bi sax ñuy commentaire léegi ñu ni Wade doom ji lay xàllal yoon ba léegi mais ak lu mu ci doon nee nañu Mame Diarra Fall député diaspora ba woon nee na loolu xabaar boobu du dëgg donte ni moom tribune yéen bid na loolu bi nga gisee titre bi ak li ñu naan du dëgg ban jàngat nga ci def. waaw du dëgg de moom lii dëgg si war a topp. Hmm. waaw du dëgg kay weddi la ak du dëgg. déedéet hmm. dëgg lii mooy dëgg moo si war a topp. Hmm. ndax Abdoulaye Wade moom ak ak Karim Wade moom ne ko kii hélas daan waxee rek nee nañ rek nga naan de communication yi ñu daan joxe yëpp te ñoom duñ wax. waaw ah. ñu ni ci jàpp seen bopp nit ñee wax noonu rek. te gëj nañoo gis ak ñoom gëj nañoo déggante mais Abdoulaye Wade moom duggutoon bay génn. dugg loolu fan. duggutoon yeewee askan wi. bay génn mais coalition la lañ def coalition dafa am nu mu doon wut am na ko. PDS nag yaa ngi tappal def nañ coalition nga ne amul euh, gis nga PDS. mais def nañ coalition. def nañ mais gis nga PDS ak yeewee askan wi nii lañ def. bokkuñu sax jëmuwaay. waaw hmm. dañuy jéem a nag di di wiñaaru nii pour jéem a corroger mais dafa diis gànn pour ñu corroger. ànd yi waaw diis na gànn ànd ñu mënuñoo ànd d'accord te mi ngi si kanam léegi li bind ci ci lim bind kan moo ko bind tribune yéen a kaay tribune yéen a kaay mi ni woon bës nga bëggoon ci sa jàpp <laughs> non ko ko doon liir ko <laughs> ko doon liir ah. munta mais ah. lim bind noonu ay journaliste lañ gëstu ba gis ni lii mooy li xew ñu bind ko <laughs> ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax di wax ni Abdoulaye Wade na jéem a ji ak ne bu doon doon yeewi mën am dara de d'accord mais mën naa bañ demee nii de. d'accord d'accord Alaaji noo gisee titre tribune yenn kaay tey jële ci maître Wade. waaw xam nga man de mhm. euh, lu ci amit mhm. du ma bett. muy tàqali ko waaw parce que ba buy amit mhm. PDS moom nañu xam leen. du ñëppay demaat. du ñëppay dem. dina am ñu toog waaw. même wad bu waxoon. PDS Wade sen leader. wa mais bu même bu ko waxe hmm. PDS mom du pay dem. parce que gis nga son bu affaire bi dañu tollu fo xamni ni. Hmm. Euh, politicien bu amul vision politique. Hmm. di nga dugg ci guuta go xamni do xam fo ko waxee di nga genn geew bi. ok parce que affaire bi mom dafa leer. bu ñu jàppee ni. jeunes yi di voter dañoo faalé ay parti politique dañuy nax seen bopp. jeunesse bi voter wuñu ay parti nekkuñu ci benn parti ok askan wuy jóg di dem di voté ji la askan wu conscient xam li ñu bëgg mhm. parti politique bu fi yaakaar ni mën ngay def ay jeu naan damay lii ak damay laa mhm. foog ni nit ñi dinañ la topp nit ñi moom xam nañ li nga xamante bi moom la ñuy topp mais ñu bari nee nañ wàdd doom ji lay xàllal de wa même bu xàllal doom ji mhm. askan wi man mom laa lay wax man waxuma ay parti politique de parce que Abdoulaye Wade tey asan koy wax léegi lii mu am tey PDS hmm. li ñu am xam nañ li leen ko may hmm. ñoo la ko gën a xam hmm. yaa ngi dégg c'est nag gis nga parrainage di nga gis gars yi toog ci plateau tele yi di tappale naan bon stratégie politique bu wàdd def dañuy tappale ñoom ñëpp dañuy tappale parce que ñoom ñëpp système bi lañ. ñooñu naan ay stratégie politique gis nga ñooñu. mais gars yi ñu ngi commentaire itamit nee nañu. Euh, xabaar bi gars ñaa ngi koy weddi. non man xol man sama yoon ci xabaar bi de déggoo li ma la wax wala déggoo li ma la wax. xibaar bi am na ak amut. Mm-hmm. intéressé wu ma. yow lu am la am solo mooy. Mm-hmm. parti politique yi mën nañ lu ne. Mm-hmm. yaa ngi dégg. mën nañ def calcul am na ñoo xamante ne bii tey ñi ngi nekk Sonko. mais ñi ngi def ay calcul politique fi mu toll nii. Ah, fan lañu war a jëm. yaa ngi de di xool ba xam am na ñoo xam ne malgré moo tax ñu nangu topp ci ginnaawam. Mhm. yooyu yëpp am na. mais gis nga ku ci génn ku ci génn géew bi. Hmm. ku ci fexe ba génn géew bi. Hmm. yàgg ñoom cere faa lay yem rek. ëpp naa def. wallaay bi loo tuddee génn géew bi bersalang. non bersalang. lu leer laa la wax. ah kon PDS bu génnee day dee am solo. Ah. mën nañu dundaat nag politiquement ci ñu am jéego yu ñu teg. <laughs> yaa ngi dégg wóor na yàlla. ngeen ko jigéen yaag cerefaal a yem. non yaag cerefaal yéen a yem. de na politique moom. yaa ngi dégg moom dana am danga naan xanaa a a a ngi ñëw te Karim bu moom gaa yi waaye di. kaay ma wax la gis nga Karim bu ñëwee <laughs> ma <laughs> su ma doon su ma doon Karim su ma ñëwee. Hmm. su ma doon Karim ba su ma doon conseil Karim xam nga bu Karim lu ma koy conseil. Hmm. su ma ñëwee. damay rangé wu. fan. Ah, c'est que gis nga rangé fan fan fan. Eh? fan mais rangé comme xaj daa xaj ci ginnaaw kenn xanaa. non rangé wu fan ci ginnaaw xam nga fi muy rangé wu. ginnaaw président dong la. xam nga Karim. alaaji waaw Karim nekkam gi bitim réew ak tëj gi ñu ko tëj. maanaam ni ñu ko ni ñu ko fexee ba Sénégal gisuñu ko. ab liggéey la. liggéey la pour waree ñëw léegi Karim dina ñëw ñu naan ko kaay topp ci diw. wóor na yàlla bu rangé wut dina waye di Karim c'est que bu rangé wut. c'est il faut que gis nga tey sooy bu gis nga politique c'est que man politiciens yi fii laay xamee ndax mën nañ politique wala mënuñu politique. Hmm. gis nga dafa am loo xam ne da ngay xam ni maanaam lu xas nekk ba pare. Hmm. daanaka loo xam ne sunu boo xoolee ni yëf yi demee xam nga analyste politique yëpp dañoo yéemu ci yëf yi ni mu demee. waaw loolu moom mooy li wér. parce que niñ daan calculer politicien fu mu war a jaar ak yooyu yëpp barrière yooyu yëpp dafa fëq. maanaam liñ doon teg. pour di jàngat politique. Mmh. loolu moo tegootut. d'accord est-ce nga dafa am yu ñu daan teg naan lii bu defee lii lii lii lii lii mais am lu ñëw loo xamante ni bi xamuñu lu mu. loolu nag. Mmh. jeunesse bii di ñëw dañoo ñëw ak beneen gis-gis bi yeneen xoolin. Mmh. yaa ngi dégg am leneen noo xamante ni bi noonu la ñuy waxee buñ demee tey ba télé yi nga xamante ni ñooy média yi yoroon doole ji léegi jékki-jékki internet bi yor doole ji. waaw waaw dëgg la suñu doon moom internet bee yore doole. <laughs> yaa ngi dégg. kuy conférence de presse sax ñoom ngay woo. lépp soppeeku affaire yi dafa soppeeku dafa. changé waaw saa saraaxu Karim ci biir euh, kii bi dina am lu mu maanaam dina jaxase. ruube yow nga defee ne tey. Hmm. yeewi. Hmm. tey jii ngeen defe ne tey xam nga pour te ngeen defee ne tey xam nga nit ñu defee coalition bi. Hmm. xam nga dañ ne fi yeewi ëpp doo fi kii ëpp doole ñu jàppale fa loolu. amul fenn fu wallu ëpp doole. <laughs> loolu moo existé wut. wóor na yàlla c'est que kenn du ko wax nag mais Touba wàllu mais Touba wàllu moo wóor na yàlla ëpp fa doole Touba Touba yeewi lañ c'est que Touba ñoo ñëpp ay pro Sonko lañ c'est pour te dire c'est que yow xam nga ko sooy bul dof doflu maam ñoom ñoom dañoo affaire yi affaire yi xam nga affaire yi li ne nekk ci réew mi dafa mel sax dañuy privé nit ñi ñu wax li am c'est que euh, Touba boobu nga nekk wamee sa li ma fi fi may waxee mooy par exemple ñi xam nga benn gis nga bu Sonko sampoon kii mu jiite list ba damay gagné nu mu tuddati. Euh, muy seen am na ku bokkoon wallu ba mu génnee saw ñooña. waaw amaatul. waaw am na ko xam ne dafa daw dem wallu jóge si Pape Diop. waaw bokkaat na. waaw waaw léegi fi ma bëgg a wax ma alaaji ah. euh, li li xañ tey yeewi majorité assemblée nationale muy benn Pape Diop wala Pape Djibril mu toog ni kën nag ni man kat duggaguma fee. loolu laal la tey Karim bu ne pàccax ci biir géew bi. Hmm. exemple ñu ngi ruumandaat naan euh, famille libérale ak yooyu tey bu nee pëccax ñëw xam nga dina am lu mu wàññi ci opposition bi. ci mm. doole. Mm. Ah, léegi kan ma wax ni 2024 bu ñu demee ba président Sall samp mbërëm ñooñu mën nañoo dajalewaat famille libérale. foofu laay waxee même bu ñu dajalewaatee day mel ni day mel ni ba ji bokk a demaatee ca Abdou Diouf. Mm. kaay ma wax la. même maanaam waa ji ku zong ku mu yóbbu ku ko yóbbu ku mu yóbbu deuxième tour. ñoom ñëpp ñu dajaloo féete fële. da leen di gañe. Sonko wóor na yàlla parce que xam la la day nekk Djiboka ak kii lay nekk Abdou c'est que Séné askan wi ci boppam ñoo am leneen lu ñu bëgg li ñu voté nii kii législative bi rek war nañ la ko. askan wi niñ daan doxalee dëkk bi lañ bëgg mu dakk hmm. ci leneen lañ ne. Hmm. te nag ñoom ñii xam nañ ni ñoo la ko gën a xam mais politique yi dañuy nelaw xam nga dañuy nelaw nelawlu parce que attention nag gis nga système bii fi ne wur na yàlla boo xamoon parce que dafa am ñoo xam ni depuis ñu juddu ba na gën ci système bi lañ ne changement nit moo ragal changement gis nga sénégalais ci boppam tuxu sax dañ koo ragal <laughs> dañuy waaj a ko wàjjax ndi ko naan lii ak la bu ñu nee marché sangam dañ koy dindi yóbbu fële. rek am na ñoo xam seen kër weekend dañ koo koy waaj a waaj ba far toog. weekend rek duñ dem seen fii la ñu toog am essence am waaw <laughs> am na xam ne ñu ñoo xam ne bii même pas deux heures de temps nga dugg nañ oto am essence te dañ koy waaj waaja waaj a waaj ba duñ dem. c'est c'est c'est grave waxuma la de. déet da ngaa ñemee wax. ku la paaseel. man. ku la paaseel tey. Hmm? tey sama kii bi. sa yére bi nam na moom Assane dafa mel ni ci butéel nga ko jëlee Assane nag préparé Assane da ngay déggoo de yow ci télé nga ne. mel ni ku njëkk ku génne yére bi ci butéel rek. tere bawal bawal la kat. tere bawal ba. tere bawal bawal. tere bawal bawal kii rek laaj tere bawal bawal. ah ah, ah bawal kon du sol lu. ah kay xam nga rek ñun dañoo taamu tool ya. Hmm, d'accord eh, xëy rek roogoo dara dem tool liggéey. ay jëf kon ba subaak jàmm. waa xanaa santaat ñëpp rek gërëm leen. Mm-hmm. Euh, di wax ni kon. waa kii koy dégg. mu ngi saako bi. <laughs> non a maanaam dama ko gis. ah bu ñu ko bëggee dégg nañ ko génne saako bi bàyyi jàmbur wax dëgg ngir gi dund lañ ko fi tëj. nañ ko mm. génne. d'accord mu mën a delluwaat si ay activité am. d'accord it gars yi nee nañ alhamdulilah Pape génn na si mbàll gi ndax coow ñetti fan lañ ko coow kenn waxatul waxi Pape Diop. d'accord non génn ko de. non non bala ngaa xam ne génn ko ci euh, baal ba ci kanam génn si mbàll def na loo xam ko regretter hmm, dana ko hmm. kon ba suba jam wa sant ñëpp gëreem leen alaaji ba suba ak jàmm incha ci carton borom bi jaajëf mbokk yeen tamit jaa ngeen jëf ñu gëreem leen sant leen euh, ku ñuy wax Itachi 33 neena na macha allah ku bañ defena wala neen lan euh, ku baña dem ñibbi weekend mom dafa am cioro Dakar jaajëf wa mom ya ko waxe non <laughs> merci jërëjëf ah, ma euh, <laughs> mamul ñaa ñu ngi koy gëreem bu baax baax ak Ndey Njaay su ma juumul xalifa Ababacar ak ki nga xam ne moom mooy a Faye defe naa moo dëkk fii ak Awa Guèye ma nga ci euh, Facebook ba moom tamit ak euh, Daba géey Cheikh Konte ak ki nga xam ne moom mooy Salif Ndiaye euh, mbokk yi gërëm nañ leen bu baax bari nañu suñ ko doon lim duñ fi jógee taximaanu solution TV. Hmm. ak Baye Fallou solution TV Serigne hmm. Daaraw solution TV ca Thiès ñu ngi leen di hmm. sant baax di gërëm Seri Thiat Seri Taaw ak ki nga xam ni macha allah moom mooy soxna maam Awa Bousso ñaam mbeng duñ la fàtte yaa ngi ci biir. jox leen dig daje ba subaak jàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa mbokk yi àddina bi kenn ku ci nekk ngi valoriser li nga amee Afrique moom ni tekk rawatina Sénégal gii ñu bokk looloo waral Alaaji Sanjoogu Mbeng ak bu Jóob dem gëstu ji ay boroomi xam-xam yu maîtriser wàllum gàncax te lépp lu tubaab bi tiitaroo ci wàllum faj ci gàncax gii la ko gëstoo seen boutique solution juddu nekk fii ci Dakar Liberté 6 jàkkaarloog wàll fajiri gannaaw bi sénégalais yi sonnee ci ay nax ak sos seen boutique solution indil leen ay garab yu baax te wóor jëlee ko ci ay boroomi xam-xam yu mën seen liggéey bopp ci wàllum sëy amee hémorroïde bu lay tey toog ñi ngi céeg bu yéeme sax da koy faj interne ak externe ana ñi amee ay mitit ci seen yaram lépp luy douleur ci seen yaram seen boutique solution mi ngi ceeg pommade bu yéeme sax miracle la de fépp fuy métti rek diwal mess lay def ñi amee estomac tàggoo ngeen ak moom ak seen boutique solution bépp xale wala mag buy gént di sawlal ana ñu yor awra bu tuuti ba mu teelee na takk soxna wala ñu ami jafe-jafe ba seeni sëy di ci tas am na fii ci seen boutique solution garab gu efficace te doy gaa yi tuddee te lépp ci suñu gàncax gii lañ ko defaree mhm. maa ngi xaar ba kenn jàmbatati fi li ma yor dafa kii tax na ba waa bitim réew ñëw dolleeku ci liggéey bi bu dee ca Angleterre ngeen fekk fa jaañ royal bu dee ca Gambie ak Allemagne ngeen jokkoog Yaya Bangoura bu dee Amérique jàpp Canada soxna Seynabou Gaye sénégalais sister ak Papa Gaye ñoo fa nekk bu dee ca France soxna Marianne moo fa nekk Italie Assane Ndiaye ak Ibrahima Ndiaye bu dee ci diwaanu Espagne ngeen a jokkoog ñoom 66 77 wala 75 630 50 50 yónnee sa xaalis sa jotatoo say garab jeex na yónnee sa xaalis ñu di la dawloo jeex na ak seen boutique solution bu leen di ko fàtte nag boutique bi xoojul jàmbul xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg-dëgg daal fii rek ci boutique solution ngeen di wéree maa jo gaani woon leneen lu bokkul loon li maa mi bàyyi woon fii weddi ma doon dama fàtte woon lii man du ñooma toppandoo ma woon ma bàyyi